الحدثان أولا ñu leen di nuyu salaam leen daggit yal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 جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له أصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يعصى فأنت أنت له كلا إنها تذكرة فمن ساء ذكره في صحف مكرمة صدق الله العظيم سركي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقر ظهرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فلمت فتنسى وإلى ربك فارغب sadaqallaahu al-aziim. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi nuyu mboolem kilifa nekk jataay bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw nuyu mboolem dong yi ci jataay bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi di nuyu suñu wóllare suñu xarit sëriñ si sa Touré di kenn ci groupe boobu ni mu waxee muy groupe boo xam ne moom membre la ci te di ci jàmbaar lool ñu groupe bu boole mboolem kër diine yi ci Sénégal yépp kenn fu si ne am na ñu leen fi représenté sëriñ bi ñu ngi xamal ne waajuram mi ngi teew ci jataay bi muy sëriñ Aliou Touré ñu ngi ko nuyu bu baax di ko ziyaara ak imaam yi mu àndal ak mboolem waa Fass yi ñu ngi leen di ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen jot li nuyoo mboolem waa Touba ak waa Daaru Muxti yëpp ñuy suñuy dëkkandoo di kilifa yu baax jaxasoo woon ak suñuy maam ak suñuy baay xam naa loolu sax moo tax seen doom ji yàlla boole noo ak moom tey jii nag di bisam boo xam ne mboolem groupe bi bokk ñépp fi waroonu teew waaye xam ngeen ne xat-xat yi jamono ak yenn gàllankoor yi moo tax ne bu soobee yàlla bu ca kanamee sax ñépp daan fi jéem a teew dafa am ay xew-xew ca kanam rek ñu bëggoon caa jàll njëkke ko njëkke ko doog a fii ñu ne nag lu gàtt gàtt rek nañ fi yëkkati ay kàddu yoo xam ne dañ koy jëmale ci sëriñ bi ak dongo yi ak parents d'élèves yi yéen ñi nga xam ne yéen a jox sëriñ bi seen njaboot mu leen di jàngal na ngeen xam ne waxuma la day njàng mi waaye jikko ji nekk ci moom dong jar na jox ko sa njaboot ngir mu def ko ci ñoom te ku jàngal nit danga ko jàngal danga ko jox sa jikko moom nag jikko ju baax la yore jikkoy yaaram jikkoy taalibe jikkoy doomi soxna kon nag ni ngeen dalal seen xel ci fànn googu te jàppale ko bu baax yéen ñi sàkku xam-xam itam ngeen xam ne fii ngeen koy sàkkoo ñu ko yàgg a joxe lan ci seeni maam ci seeni baay ba ci moom mii kon nag na ngeen góor góorlu jéem ko fee am am fi biyar am fi taggin am fi xam-xam loolu mooy li am solo li soxna si wax léegi inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la képp koo xam ne alquran mi ngi ci sa bopp mbaa ci sa dënn mbaa ci sa yaram yaa ngi ci biir kaaraange googu kon nag mën naa sàkk bu baax te alquran kat Sëriñ Tuuba na kitaabun bi narju min allahi rahmatan téere la boo xam ne yërmande àdduna ak àllaaxira de ci alquran rek lañ ko fooke kon nag mën naa fonk bu baax ñu gàttal ndax comme ca kanam dina war a ñëwaat ànd ak délégation bi buñ waxee li war a wax it war cee bàyyi dara ñu ngi leen di nuyu leen sant di leen gërëm di ñaan ci lii ngeen tàmbali ci bismillaahi yàlla na ngeen ko àggale ci alhamdulillah yàlla defal leen tawfeex defal leen taysir faj aajo yépp képp ku fi ñëw aajo boo fi indi rek yàlla na ko yàlla saafara bi seen seydil wujuudi sallallahu alayhi wa sallam barkeb xaadimal mustafa barkeb suñu maam ju ja suñu maam aadi ture nga ne fii tey ab ëttama yàlla na yàlla taas ci salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu incha allah suuratul layli bismillahi rahmani rahim hal bismillahi rahmani rahim hal layli isa yamsa wal nahari isa tajalla wa ma وشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله ساء أخوى سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأسرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تخسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم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 سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن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 وأنزلنا من المحصرات ماء سجاجا لنخرج به قبا ونباتا وجعلنا نات الألفافا صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا هدايا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 الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربي إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين من قلبين في جوفه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أن ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله محرج ما تحذرون ولئن سألتهم تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة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 وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يقرؤون يذوقون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليه صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات إذا woo Serigne Bari ba déwén incha allah fekk leen ko baax a baax a baax mu àgg palaasam ñu woo ku ñu wax Baye Serigne Touré fekk leen Baye Serigne Touré. وعلى قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يسعرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم تكبير takbir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام تبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسن سبلا لتبتغوا لتبتغوا عرض الحياة يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم ko jox wàccuwaayam bu baax a baax fa tabaarakallahu muy wóllëre bu baax ginnaaw biñ nuyoo kilifa yi bi ma fekk yëpp ak oustaz Faye ak asatise yi ma fekk di ñu dégg fii neex na tegu ci yoon wa tabarakallahu ndax ñun ñun ci alquran la ñuy yëngatu di nuyu sang yi nekk ci kaw yëpp kilifa yi buñ fekk rek xamuñ sa tur tamit ñu ngi lay sant di la jox sa wàccuwaay di nuyu ñëpp fa tabarakallahu fa tabaarakallaahu di sang nuyu jigéen ñu baax ñii li leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax fa tabaarakallaahu alquran ji neex na képp ku jàng tajwid rekk kontaan nga tey fa tabaarakallaahu ndax alquran ju tegu ci yoon bu ko defee di na di nuyu dëkkandoo yim dëkkal di nuyu waa dëkk bi yépp di leen wax ni fa tabaarakallaahu képp koo xam ni daal yaa ngi dëkk ak kilifa gu mel nii ñun daal liñ lay wax mooy nga fonk ko parce que ku for urus wurus danga nga koo war a téye ci sa fukki loxo ndax yéen wurus ngeen for ndax ku am ku mel ni sëtu sëñ haadi rawatina muy deretu Seydi Xaaji Malik te deretu Seydi Xaaji Malik mooy deretu Sëriñ Tuuba mooy dereeti ñépp ñu baax kon ñi ngi leen ñuy dénk daal ngeen gën koo fonk xam nañ ni sax fonk ngeen ko ngeen gën koo dolli ndax alquran inna nahnu na dikra képp koo xam ne nii yaa ngi dimbali alquran ca sax danga bokk ca ndimbal googa wattu googa yàlla di wattu alquran dana la ca boole kon yéen dimbali leen nitu alquran yi te dimbali nitu alquran weesu la ca jiitu mooy nga jox ko respe jox ko cër jox ko cër moo ca jiitu laneen beneen ndimbal doo da ñëw kon loolu ñu ngi leen ci xam naa ni yéen añ ca sax waaye ñu ngi leen ci gën a soññ bu ko defee fa tabaarakallaahu dañ ñëwoon tamit jotaale kàddu taalibe cheikh yi ndax dafa am benn bis boo xam ne nii dañ koy dëtmal di ko wutal si muy safar le 18 safar xam ngeen ni mayu Seydina Cheikh muy alkatmiya maqaama boobu ca la ko jotoon maqaama boobu ca la ko jotoon ñu am ci ndigal xalifa général muy Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin pour jour boobu bu jotee ñu daldi màggal jour boobu ngir seydinaa Cheikh ñu koy defe fii ci foire bi bëggoon képp koo xam ni yaakaar nga Seydina Cheikh rek jour boobu nga teew ca boo dee julli tamit nga teew ca rawatina nga yaakaar Seydina Cheikh kon ñi ngi leen ciy invité yéen ñëpp ñiy taalibe Cheikh ak ku dul taalibe Cheikh. joxe na ndigal pour képp kuy taalibe Cheikh bis boobu suba ga na la fekk foofa pour ñu daal di màggal darajey Seydina Cheikh xam ni Seydina Cheikh jour boobu da coo jotoon. daraja bu ñu wax alkatmiya ndax alkatmiya nee na maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko ñaara a ko xam ñaar kese man yonent bi di sa maam ak yàlla mi la bind kaneen malaayika yi sax xamuñ ko kon jour boobu ñi ngi invité képp koo xam ne yaa ngi ñuy dégg nekk daayira fii ñi ngi la cay invité na ngeen xam ne kamis li Cheikhuna Tijaan laa laa ana taalibi Cheikh bayaa di sa turandoo sañaar di nee na Cheikh Seydi Ahmad Tijaanin kooku hël min murabbin xawaa kamaala kamis li Cheikhuna Tijaanin laa laa Cheikhuna Tijaanin كم طالع في سماء منير وليس كسمس في عيال نجل غمنا فكان قطبا وكان غوثا وصار ختما على مصر الرجال كن بخد باقي برامج ولايه na ñëpp na ni sëriñ Cheikh na Tijaan na lay tëb di may sa turandoo nee na ñëw leen soobu yoon wi ci wer ak wasifa te aw ci yoonu yàlla ci kontak ci xëy sa turandoo nee na na teelu gaañu baax te ngeen xañ ci te kuy xañ ci sunna moom na cay mooy di ca way na ngeen xañ ci sunna te ngeen xam na bidaa bu feeñee ci mar sa du jar sax njëg bu Cheikhuna Tidiane yow mi koy bañ ak di ko jëw ak texe di ñëw na ci yow loo falang falang dana ñëw gaawal daw te tuubi ko bii kurus ku xas ni ko cas soo waree danga xalalab mool mu wëttuwul di la fab lee nga lab la baale ko samam nee na saasaliyu ak karaqiyoom sa turandoo Junaydu ak sa xatiyoo Fudaylu kul wali seeni xel xalaatu ko akon barakallah la nga ca doon séentu itam am nga la raw sa njort ah, su ko defee nag kàddu yi du samay kàddu kàddu suñu kilifa la Seydi Ibrahima Jonn mu ngi toogoon fii sànq yaram bi moo ko mayul yenn toogaay yu yàgg yi di kàddu Seydi Cissé Touré di suñu lépp ndaxte itam fi ñu mënti dem ci fànn gi itam kay doxal ca wàll diine su dee boroomi xel lañu moom lañuy jiital kon moom mooy suñu njiit ci fànn gépp doon koo xam ne itam ku bàyyee boppam ñi nga xam ne itam ñiy doxal ak a dundal diine waaye itam ku am fulla ci boppam ci loo xam ne itam dafa jëm ci li sofaanoo ak loolu di ñaan yàlla itam yàlla na ko yool yàlla doole tawfiq yàlla na ko yàlla dafa sutura ak kaaraange ci barke Seydina Muhammad te am nañ ci yaakaar bu baax a baax